Chez Katia, le showroom, Biz Collection, Lumière du Sénégal, Leral TV, Huile J'adore, AMD Corporate. Namour. waaw bébé Diop. sa lampe bi nag. waaye benn marchand ambulant moom ko jaay vite fait. lii de bu doxul nga waaru. toogal foofu noonu. lii maa la koy branchel daalal la ko. mais waa ji dóor na. ah Namour. maa ngi doon changé ampoule bi ah. léegi lampe bi fu mu jëm. non gars yi sérieux wuñu quoi on dafa yomb trop lii nii Sénégal weesu ay pendule hublot lanterne classique wala bluetooth couleur boo bëgg forme boo taamu pour jox sa intérieur wala sa ambiance bu méngoog sa bëgg rax ci dolli ay njëg yomb ba ku nekk mën fi ñëw taamu bu ko doy. Huile leshowroom.sn leshowroom.sn leshowroom.sn leshowroom.sn acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash sa commande lañ lay andil nga fay ñu cash acheter en ligne ñu livrer la ko comme flash ci vous offre votre série Face cachée du réseau. gone googu doon fréquenté seen kër gi te ngeen jël ko ne yee yaay seen doom la. kan Feli. waaw gone gi Feli. kooku di kenn gisu ko kenn xamul daa fàq kenn xamul dafa nekk ci lu ko neex ñun daal xamuñu. eh loolu ci weenu yaayam la de xale bi lu mu nàmp loolu la tàqamtiku xale bi yaayam rakaay la kon moom rakaay lay doon. Zara du ku baax mënul jur lu baax mënul nàmpal lu baax xale bi fu mu gimmee foofoo bon moo tax faw mu bon xale bi da ngeen di waajal nii rek réer lañ leen wax dinañ loon woo ne leen mi ngi agressé wala mi ngi prison des femmes waaw wala mi ngi def ay crime xale boobu li mu nàmp la. sa mère est une vampire c'est une petite vampirette c'est la famille loolu la nàmp mais information de taille laa la andi lool te xam naa ni boobu dama koy wax rek jug demaaleek moom Daouda Tandian mi ngi fi. non dafa génn. <laughs> ndeysaan soxna si yow da ngaa joyeuse ngay ree rek yal na yàlla jubóoleeg sa jëkkër daaw du bu ñëwee nga ne ko man Marija ma ne Feli moom du baayam. soxna si mais Marija da nga foog ne comédie show nga nekk nii wala. Ah, bu dee comédie show nga nekk de man maa ngi reetaan yaa ngi may daj fi ma toll nii <laughs> yowee eh, lan ngay wax nii. li ma lay wax nii nag yaa ree ndax lii plan bien élaboré la. lii nga wax dafa diis de wàññi ko waaw. gis nga numéro boobu ma la woowee woon woowaatee la ko tey enregistré ko preuve boo bëgg dinaa la ko andil te dawuma ci nag saala yaay ndeer ba cour de la xee ñu teg ma paaka ci baat. ku la laaj ne ko Marija moo ma ko wax daaw da tàññaa jurul feli li ngay wax est-ce que wóor na la pour wàllum preuve moom loolu du problème kon dinaa xaar say preuve leneen loo soxla woo ma ma andi la preuve xam ne jamono ji takk naa la xarit nag takk naa la xarit takk la ndey dikk àndi sa juróom ah. xale bu jongama nga am nga respect boo ma wóolootul woon commencé maa wóolu ndax man dugg naa la ni si biiru nii yal na la yàlla bàyyi sa sëy waaw bàyyi ma gunge la non non yamal foofu rek xam naa ni cas bi ma la jox daa diis toogal médité ko li ma jox diis na torop chaque jour rek nopp dallooti chaque jour ko jëfe ñii moom mënuma ko sax toogaale daaw de moom foog mu gaaw ñoom eh! blague. Je suis content de toi. Parce que gis naa avec quel professionnalisme tu as su garder mon secret jusque-là. loolu nag dafay gën a yokk kóolute am ci yow rek. maintenant nag j'ai besoin d'informations surtout concernant le cartel. ce cartel qui m'a tout pris li ma dal ak li ma nekk yépp ak fi ma toll ñoom ñoo ma ko teg bëgg naa xam ci yan anam nga taxawee fi ñu toll nii ñan ñoo fa nekk ba léegi ak kan moo koy diriger mais aussi et surtout sama njaboot bëgg naa xam ci li ñu nekk sama jabar sama séex yi lépp lu leen concerné bëgg naa ko xam fii nag tu as toutes les informations nécessaires pour que nga mën a suivre piste yooyu avec les moyens nécessaires bien Maintenant, la balle dans ton camp. boss mission bi du lu ndaw avant de partir sa téléphone nga koy utiliser. ouais heureusement que tu as compris que je prévenu évite les coups de fil. à tout va. Attends, seetlu nga leen Malick c'est la deuxième fois ñuy ñëw këram duñ ko fi fekk. Hmm. depuis commissariat. boy yow yaay Malick n'est-ce xam nga li la fi indi Feli dafa réer ay waa këram ñoo ngi koy wër depuis boobu ba léegi. gis ñu ko fenn te yow ak fili yéen doon ànd guddi ak bëccëg awma temps bu may perdre wax ma fan la fili nekk inspecteur man fili gëj naa ko gis te tamit gëj naa ko dégg dama koy woo ba sonn au début sax téléphone am daan na sonné mais léegi sax sonnetul jaaxle naa trop. eh dama bëgg nga siggi xool ma aw temps bu may perd fu fili dugg xam nga ko dama bëgg nga wax ma fan la fili dugg eh ñëw ma fii pour toog a yow di jouer ah wax ma fan la fili nekk. te inspecteur waatal naa la si yàlla ni la man fili ngi dinaa ko gis. gis nga boo dof dofloo bu ma découvrir vérité bi nga nekk si di nga am sérieux problème lenn dina la ko xamal xamoo nan laa def ko indi la fii heure bu ma la soxla da ngay ñëw fais très attention ma soxla la nga nekk feneen wala nga disparaitre di nga am sérieux problème soit Malick dafa faq ak Feli wala Feli di ñuy fonto effectivement chef l'autre fois yónni nga ma école Feli dem naa fa mais gardien bi laa fa fekk il m'a expliqué ni Feli jàng si na mais bis boobu dix-huit heures mooy la wàcc dix-huit mooy te bu ñuy wàcc moo copine am ñoo ànd depuis loolu la ko gëj teg bët. allo allo léegi laa jógewaat ci société bi Malick di liggéey. oui. waaw mais seen chef bi nee na fan yëpp liggéey siwul te daf koy woo aussi du ko jot. depuis boobu la gëj liggéey si d'accord de toute façon fexeel ba gën a am ay information muy xaritam yeeg muy ñëpp. Ah, d'accord léegi d'ailleurs lu ma si am rek dinaa la war incha allah. d'accord je te rappelle. sama maam yi moo doon woote hmm. depuis boobu la Malick gëj liggéey foofu donc comme chef jot na pour ñu jël suñuy disposition si bile mbir ndax cas bi ngi bëgg a critique le temps léegi désormais chaque jour del yebal benn élément fi bu mu bàyyi dara ok chef ne vous inquiétez pas on est d'accord chef y oliva. Hello boy. Yeah, naka ma bon pour booy bi laa doon wax quoi waaw xam naa ne tey moom ngeen koy mujjee gis waaw ok bon pour sécuriser rek dama lay ni xamal leen sama xaalis fexe leen ba dërëm bu mu ci des sinon loo leen gis na ngeen xam ni man la c'est ok ok baax na loolu laa xam jaajëf. waaye santa naa lépp jàmm kay. xam tey lu ma fi indi. yaa comme d'habitude. non comme xam nga baax li ma la wax. waaw mais mooy li ma woowee. mais sama xaalis fan si toll tamit. cest <sighs> à sa xaalis ñu ngi ci. non ma ñu ngi si yéen boobu ba léegi su ma leen woowee tey suba nga naa ma ñu ngi si ñu ngi si ngi si ba kañ dafa am fu mu war a jógee non la may dafa am fu mu war a jógee mais eh, xam nga ne man ak yow chaque fois non non ci ngeen dëkk du question de seq business da ngeen commencé yàq business bi da ngeen may tegal seen job ma job ko normalement te sama xaalis moo ko bëggee jot di ci daw pour lan la loolu cest sa koppar di nga ko jot non dolu ma fii ay wax di nga jot sa koppar wala doo ko jot loolu indiw ma fii ba ba léegi booy bi nangam nangam te booy bi maa leen defal li ci war yëpp. sama xaalis laa soxla. sidaat yi. noo jarul nga naa ma sidaat yi jarul nga ma koy wax xam nga baax li ma lay wax. da ngeen am habitude bi su ma la man di ma joxoñ boobu tey c'est parce que waxuma moo tax nga temps lijjantiw ma la man dama yow nga naa ma ay sama yi ngeen wax man si temps bii nii yow man dama la lijjanti. yi xam nga ma bu baax. soo a man da ngay wàcce sa baat. ma sama baat nu ma neex laa waxee ak kenn du wax ak man di ma joxoñ. waaw yow man dama la lijjanti nga naa ma ay. ci eh, xam nga bu baax. Eh, lijjantiwu ma la. toogal waaw ah, ban toogal. toogal. waaw yow ma dama la lijjanti dafal nii waaye woo. Sidaati ak yow mosuñu am jab jabu ma. Eh, dinañ am jabu xaalis nag ba ba léegi maa ngi gérer seen job li ma leen di wax tey laa leen koy wax booy li ci war tey dinaa ko def dinaa ko liquider mais gis nga su ma ci paree sama xaalis bu manqué dërëm wala yóbboo ngeen xam ni loo leen gis ngeen xam ni man la wax naa li ma lay wax nag maay dem suma yoon. Zé foo nekk ni su dee nga ne cee nii déplacé wu waaw maa ngi si jàmm xoolal euh, kaaw booy Malick réglé nañ ko fi mu toll nii quoi moom laa jugee waxal ni léegi nii questionnement yi ci woon yëpp def naa ko te wax na ma lépp wax na ma li mu sekkaloon ak fili wax na ma depuis kañ la ñu xamante wax na ma yu bëri yoo xam ne ay saa yi nii nii nii xam naa ne yow xamoo xamoo ko woon quoi. waaw non pour lool bul inquiété wu li am ba am li ma lay wax tout le temps fais très à toi parce que instant yi nii amoo pour def lenn loo xam ne dina retourner nit ñi ñuy dute ci sa ci ci yow fait ci sa voilà ah ok léegi bon loolu su jeexee tamit zé y a problème parce que booy mercenaire bi ñëw na fii voilà am nañ altercation tamit lu may laaj xaalisam Donc n'oublie pas hein, donc, euh, de suivre mes instructions à la lettre. Parce que tu sais que les bonnes affaires, les bons amis, nest pas Mais parfaitement. Bien, donc euh, on s'en tient. D'accord, allez voir. Ah, docteur, moi Comment vas-tu Ça fait plaisir. En effet, maintenant, le ah, euh, et c'était pour t'exprimer, en fait, ma reconnaissance. parce que li ma defal dara mën ko parce que tu m'as sauvé la vie tu m'as permis de rester en vie te loolu mënuma la ko fay raison pour laquelle je te éternellement reconnaissant je voulais juste que tu acceptes en guise de cadeau entre nous un chèque j'ai d'ailleurs préparé à ton endroit et que mon homme de main Tons defuma ko pour ay fantôme ak yow quand même xam naa li ma def c'était trop risqué parce que sama liggéey xajoon na si. dëgg sa dund xajoon na si. c'est mais quand même comme que génne nañ si rek alhamdulilah Tons dama la jàppee comme sama parce que yaa sama papa doon ànd. position boobu nga am si man mais chèque bii nga wax ni du ma ko jël. mais je ne sais pas de t'acheter je sais que tu n'es pas un homme à vendre je suis persuadé que tu es mais lii dama bëggoon rek nga nangu ko parce que man war naa la defal ay cadeaux. itam lii yëpp lu ko fi jeex hmm? lekkatoo naanatoo dematoo bureau kenn xamul lan ngay nirool man li ma mënoon yëpp def naa ko toxu nañ pour ma foog ne di nga am jàmm mais ba tey situation bi changé wut lii yëpp ndax fili fili yaa gën a xam ne Malick la àndal dem yoonam kenn xamul fu mu ne tamit dina ñëw rassure jàmm mooy umpe day yàgg rek mais dina ñëw incha allah hmm? dama bëgg nga jug nga mel na nga meloon di lekk di naan di dem bureau di liggéey yow tamit jéem a la changer tuuti on peut pas. Feli léegi mu ñëw lii daf may gën a biral nag gis-gis bi ma am ci yow ndax xam naa ne ku dëggu ku jub nga ci ku am yërmande en tout ca kontaan naa ci on reste donc pour toujours lié jërëjëf encore une fois docteur waaye nag bëggoon naa bu ma sañoon bu ma la joxatee cadeau nangu ko parce que man sa baay la en tout cas excuse-moi pour dérangement. non am benn problème. vraiment xam naa ne am leen jot parce que tout le monde a besoin de vous. vous êtes tout le temps n'est-ce pas donc euh, au chevet des malades. n'est-ce pas que vous essayez toujours de soigner de soulager donc encore une fois merci. et à très bientôt j'espère. <laughs> Hein? et puis euh, voilà la porte est toujours ouverte. ok merci beaucoup. donc. merci à la prochaine. voilà un jeune homme digne, n'est-ce pas Une race qu'on ne retrouve plus de nos jours. waaw daam lu ma la bëggoon wax dafa am benn meilleur ami wu Zara bu ma woo bi ma woowee ne ma c'est très urgent man dama foogoon sax affaire u Feli la may doyee yaa may bi ma ko nee mbaa jaam mu ne ma dama la soxla est-ce que mën naa mën nañ gisee ma ne ko waa amul problème ci laa ko wax mu ñëw ci kër gi maa ngi jéggalu nag li ma la ko waxut mais lim ma wax si pas lim ma wax man lim ma wax sax sañu ma la ko wax boobu te tàmbali nga ko déjà bu xamoon ne fii lay mujj kay loo doon tàmbale waaw bëgguma la ko wax ngay amaat beneen problème mais pourquoi alors tu as commencé déjà yokk nga ma problème au contraire parce que bëggoo ma ko wax yow boo nga continuer commencé nga ko kay man daal mère ami bi daal nee na ma que yow juróo feli man de xalaatuma woon ne jigéen capable na loolu di jiiñ nit doom te mësu ko jur man de li ay Zeyna yow yaa sañ lu ko raw yow yaa capable yow yaa sañ lu ko raw laa wax comment oses-tu ak li may daj lépp nga ñëw taxaw di me raconter des bêtises comme celle-ci des imbécilités. mais bêtises lan xam laa wax waaye yow tu la fermes yow mu jur sama doom pendant dix-sept ans yor ko nga ba mu disparaître maa ngi ci diggante tunda dee nga naa ci da nga bëgg a toggali wala lan. xam nga seen yow yow xam nga ne Zahra sama diggante ak yow la gën a bañ que ce soit la dernière fois ngay prononcer bêtise and imbécilité yu mel ni tu as compris kan moo la wax dëgg moom moo ko yónni pour ma toggali ma ne Zara yónni ko benn yoon. arrêté bu ñu waxee waxu Zara sa furu fara bi naaw yow lan la. Eh, yow lan la problème. fille man maa ko jur c'est ma fille. musoo ko jur. comment tu peux croire les paroles de Zara wala meilleur animam ah yow bi mu la ko waxee nga xam ne fenkat la yow xam nga ci koy Zara xam nga ne c'est le diable en personne. yow Zeyna est-ce que nit nga fan la sa noon di ñëw di la wax information yu mel ni nga koy gëm nga jël di ma ko raconté waat. mais yow di ci ci ci ci ci ñu jot. lii mu ma ko expliqué loolu laa la ko waxee juróo feli waaw. bu tuddee Zara rek sa furu fara bi naaw. ok di wax ko Zara rek ngay naaw di rëbbi rëbbi dina leer. Zara lan lan lan qu'est-ce que tu veux Zara. Zara mënoo ma bàyyi léegi yow lii moo la dese je sais que tu es capable de tout tu es capable de tout sañ nga lépp Zara mais pas ça pas ça Zara Zara bu ma def. mais dinaa ko leeral léegi léegi yow Zara dama lay rey. Awa Samba pare nga. waaw di la retour tës bi mooy ban. bii xoolaloo ko tuddee. bii mooy sambal. lan la doon wax bi ñuy dajee danga neex. waaw. sama premier jour mu ma lay njëkk gis nee nga ma da neex mën la boo ma ñamoon xam mu ñëwaat ci salon bi sa kër seet la nga ni ma boo ma ñamee xam bi mooy ñett yoon tey ji nga neex dama neex. muy yoon tey rek boo ma ñamee di xam lu may saf. balaa dara di xew xam nga ci naka. ah. tey nag xam nga loolu suñu bànneex bu fi nday détail. naan nite nga. ah mooy li ñu xaalis ba. jógal taxaw mu xool. Ah. ubbil fële. yëral gis nga lool. trois cent mille ci nekk après nga jël ko yaa yaay borom. ii tey dafa pare. waaye li lan la nii. tey li ci pàccam. vingt et un yi ku leen moytu ah illa rek laay dee yéegal bopp gaaw a tamit. bañ balaa may crise. da def nànk rek. waaw oh, ñëwal ñëwal yëggal bu coupé sama appétit. Mbaalu da nga waaj yegg ci yoon bi. ñëwal balaa may daaw. gaawal waaye daal ma daanu waaye ma daanu waaye jublu. taxawal. gaawal da dama bëgg nag sa bi ni ngay entraînement muy génn ma ciy tëdd di ko sentir. yàq sama appétit waay waay yëg na waaye tamit. xam nga man sa daf may daaneel. li ngay def yéex na trop. fii du heure waxukaay leen doo wax na ko ba pare. mais naka rek balaa may daanu waaye tamit waaw. ngay la. eh waaw waaw luy def nii. eh defal naa teel tamit. Ay, la pior. Dano, fa... fa la rond-point ngeen ñu jot ci numéro whatsapp bi ñu leen di wan. Lumière du Sénégal, illuminez votre intérieur. Huile J'adore. www la showroom SN mooy suñu site di nga mën commandé lu la neex jot ko si saa si soo yoree weccit accessoire pour téléphone bureautique climatiseur smartboard téléphone télévision ak ay ventilateur matériel électroménager loo xalaat yépp ci biir te dañ lay livrer fépp foo nekk jàppal yaa ngi ci biir wol 77 855 65 di nga jot wol sànq ci tur wu ànd ak réseau quartier plus. waaw ah, loolu moom jox la di. waaw quartier plus nag. xanaa perte réseau jeex na ci Sénégal. doom ji nag sunu doom. waaw sunu moomeel. bis ni tey woo ma ci sama 75. I am decorporate